ne ni eh, junniy milliards daañu ko nag fas yéene jëlaat dugal ko foofee ci diwaan bu Kaolack eh, ci diggante atum 2024 eh, jàpp 2026 njiitu réew mi Macky Sall nag xalaat xalaataat lu jëm ci Kaolack ak taxawaay bi mu ci war a am Le Soleil di ko feelu ca wet ga ni junniy milliards yoo xam ne nam mën nañu ko jot lépp nag nar a jëm ci wàllum infrastructure routière wàllum énergie maison de la jeunesse boo xam ne rek ñu ngi ko fas yéene amal jagleel ko ñii di ndaw ñii loolee lépp nag président Macky Sall dellusiwaat na ci ci ngan ngoo xam ne mu ngi ko fay amal bu ñu sukkandikoo ci yëglekaay bii di Sud Quotidien ma ngay xam ne nag ni njiitu réew mi moom ab programme de développement régional la daal di taxawal foofee ca diwaan bu Kaolack lépp nag mu fas yéene koo yeesal dugal ca mille milliards Le Quotidien faylu ko moom it daal di xam ne ni ab tournée économique la boo xam ne nag Kaolack kay moom daanaka jot na wàllam ci nar wi ndax xëpp nañu leen ni milliards Les Échos ni Macky Sall ca boobee tournée économique muy ma ngay neexal étudiants yi ca Kaolack ndax nag xamal na leen ni daañu jot seen wàll ci koppar yi nga xam dugal ci seen dëkk ba évidence dellu siwaat ci ngan googee Macky Sall amal ca Kaolack ni teextu bu am solo la ñu ko daal di teextu te loolee nag loxol Pape Demba bi tey génnu ca ndax nag ñaari junni ay ndaw la daal di mobiliser lu soxal tournée économique boobee njiitu réew mi amal nag ci diwaan bu Kaolack yéenekaay bi di Sud Quotidien séq ceeg waxtaan Momar Thiam dip expert en communication politique la mu xamle rek bokk na ci moom sëñ bi Thiam ne njiitu réew a Populi daal di nag dellu si ci ab mobilisation boo xam ne juróom-ñett fukk ak ñeent ci ay doomi aadama di ay personnalité cong gi ñu amal ñeel wàllum état de droit fii ci réew Sénégal la ñu bëgg mu daal di dakk ci nu mu gën a gaawee woote bu nu mel nag ña ko séq dina doon ay homme politique ñi bokk ci wàllu société civile seen bëgg-bëgg nag mooy fexe wàllu démocratie ak justice bi ñu bañ koo salfaañee libération dellu siwaat nag ci mbirum oustaz Omar Sall nañu ko tegee loxo ba nu ñu ko war a placer en garde à vue moom nag la ñu koy toppee bokk na ci mbirum diffamation saaga yu ñu ne da koo yëkkati ak yeneen ak yeneen daañu ko defeere tey jii ci alxames ji ca parquet enquête yëglikaay nag ab laaj la xëy daal di ko samp ne APR lu muy joué ndax nag dañoo bëgg xajamal candidature Amadou Ba am dañoo bëgg nag daal di koy déstabiliser lu mu ci mënti doon mbir yi moom du yomb benn yoon ci candidat Benno Bokk Yaakaar Ibrahima Bakhoum ne mënee suñoo tànnloo Macky Sall candidat ba noppi nag des ca gannaaw di ko faqastal Pape amadu Fall ni dafa war a bàyyi njiitu réew mi te jéem a xool nu mu jegee askan wi mel Pape Mahawa moom ci yéenekaay bii ba tey rek muy xam le ni amul plan B benn candidat la ñu am te mooy Amadou Ba beneenub candidat boo xam ne rek Abdourahmane Diouf lay wuyoo moom nag lu jëm ci élection présidentielle yeeg tuxal gi ñuy sàkku ak di ko ci laam-laamee muy xam le ni nañu teg lépp ci suuf loolee du am tey du am lëkk ëllëg yennuwul maanaa te xel xalaatee su ko Fadel Baro xëy seq waxtaan wu am solo ak yéenekaay bi di Source A ne programme présidentiel yi nag arnaque dëgg la ci dendu Afrique yàgg nañu caana Fadel Baro di ñaawlu DG ak e na parrainage yi nga xam ne nanguwu koo jox Ousmane Sonko loolee nag mu jàpp ne jaay doole Sall mi mu jàpp ne dañoo bëgg a forcer Amadou Ba bokk na ci li waral moom Fadel Baro mu bëgg a samp nëndëm ngir doon mbër ci élection présidentielle yu 2024 ñu dellu siwaat ci yéenekaay bi di réew mi quotidien muy ne ni nga xam ne ñii nga xam ne dañoo fare ci wàllum collectivité territoriale na moon a amal intersyndical boobee teg nañu ko ci suuf ginnaaw fukki fan ak juróom nag daat nañuy dakkal lépp loo xamante ni nii moom moo yëngu-yëngu yi ñuy amal loolee nag ginnaaw waxtaan wu ñu amal ci seen diggante gouvernement bi ba lépp loo xam ne rek bëgg-bëggu liggéeykat yooyee la mu fas yéene caa taxaw ab taxaw seetlu boo xam ne yéenekaay bi di l'observateur def na ko niki tey jii moom nag xëyee ab laaj ni yi nga xam ne dañu koo dugal ci wàllu wér-gu-yaram gi ana fu mu jaar a ginnaaw yi jafe-jafe yoo xam ne rek ba tey jii ñu ngi koy jànkoonteel ci wàllu woowee jëm ci wàllum équipement mbirum payoor yeneen ak yeneen liggéeykat yi dëkkee jooytu loolee nag mu ne sëb la la ko bënn mu ngi ci biir tàggat yaram la ñuy daal di xëy fësal nag foto Boulaye ja ak Jackson di laaj ñaari attaquant gaynde yooyee nag ana ku ca gën a taxaw suñu làmb nag di ko feelu ca wet ga moom foto Siteu la xëy daal dina fàng dang mbërub lamsaar bi nag di xamal adversaire am bii ne ragalu ko tey ragalu ko ëllëg mbër mu ko ëpp dàq ko bëre bu week moom dana ko duma daan ko mbokk yi lii moo gënoon fës yëglekaay yi jàmm ak jàmm. Société nationale d'électricité bu Sénégal Sénélec moo leen doon may seen